Lamine la sa baay tudd Daouda baay Dias la sa baay tudd Daouda baay sa wax na ak yow laata muy dem kon xale yi kon jigéen ñu ñaawul yaay joo ba jëwal Ndakaaru ñu ci benn jigéen ba jëwal Ndakaaru monsieur Sawa Diagne ba yaay joo sama nijaay ak si na ma ne bay màgg ak jaxir bay màgg ak bëj ci bay ji xawa yaay njëkk njaay maa ngi wóolu bi ci yoo eh eh international bi ñëw bay jaane bay ama bay falu kon maam Njaay première dame sama na jaay taxu kenn ma jéeg ñi tëddi dem tëddi après ak Cheikh Ndiaye maama tey jii moo leen nuyu xam nga moom sama traité dañoo war a doxal waaye moom fu ma fekk mooy sunu kilifa dañuy tàgg leen ba dugal ko ba pare on continue jërëjëf léegi léegi nag man jox sama nijaay siis mu toog ak Seydou nag mu dëgg man Sam yow Aïda ndeyam yaay yaay bàjjanam yaay magam yéen a bokk ci ndey bokk ci baay léegi maam Aïssa nee na dafa am ñaari baat yu mu war a wax nee na ñu ko ñaari baat mu tënk rek après ñu jukki li ñu war jukki mi a yëngu a dem. konoon man tubaab laa ñaari baat yi ma wax loolu laay def. Gambien yi maa ngi leen di nuyu ndax am na fu ma jaar ak yéen ku ma ci xam ak ku ma ci xamul ñëpp teral nan ma aw ma fa taas interview ña fondement Gambie ñooy samay nit samay jaar ba ma bëgg leen a wax Aïda Samb nii dana sëy ba seey ñoo bokk benn juddoo ca Mbàkke may ndeyam bokk moom baay bokk yaayam baay jaatum ndeyam man la ko may première ndey ñii doom ñëpp samay bàjjan la ku ne xam ne aman Njaay ak Samba Jabare duma fi ñëw nag te fekke li tubaab wax preuve ma ndeyam di ñëw ci kër ga la ma fekk jóge école normale d'enseignement féminin technique bu Bara Soir ñu affecté ko fànne première baay jàngal ma xale bi barke maam Cheikh Rafal man kenn xamuma ci waxantu samay mbokk nga ni toog ci waxantu wala ñàkk fayda damaa mat li may wax dafa am respecté nay ndeyam tànta rek la may wax faat si yaayam tey yére bi ma yónnee woon ci màggal bi tey la ma ko ndey ma mari lay door a jox Marème Ndiaye ngi ni toog di sunu taaw ku ne xam ne Amane Ndiaye ak Samba Jabare kon duma toog fi ñuy takk doomi faat si ji ndayam jaar ak man fu ne ba nuy denc jógal kebe maa ngi am sama doom ba am ñeenti weer mere sunu kër dikk duma ko fàtte mu ko laaxu bisaab la ma toggal faat si nit ku baax la ñoo bokk bàyyi ku taxaw di wax sa baax na rek sa baax na sa ndey mu sa yaram dabal fay ragal joo xam ne ndeyam baayam la xam ba mu suul ko wala mu suul te da ngeen di xool ni demee juróom-ñetti fan yi ndeyam mooy ñeent fukki guddi baayam barke Serigne Touba yaay jàmbaar ñëw nga Ndakaaru man fu ne laay dem tuxoo feyoo di taasukat yi wax tukki woo yàgg fa juddoo ni nga juddoo di bete bete di côté bu ne ay na li ma bokk yow daa bari Samb Siré sa sëy bii ci yàlla ak yonent bi Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal teg loxo ñoo bokk bàyyi nag ci seen biir laa ne biram diggeeg soogi digi Samba loolu kuro Moussa suku porte Samba la gàññu leen boobu soogi ñoo bokk ñool ma teg démbarim ginaa njaas ak mari yàlla tàggoo naa nga sooyaa sa maam dafa taxaw ci digg Fuuta ne tawal mu taw tàggoo naa nga sooyaa mooy yàlla tawal mu taw borom ngàllo gi ci Njaasaan borom jaam i ci kër Yoro Sadio keroog ba sa maam di dikk dafa ànd ay jaamam jaam yu xajuni ci biir kër gi biir dëkk bi mu may leen dëkk bu ñuy wax kër Yoro Sadio ñoom i ngi nii toog yaa moom ngàllo gi ci aaneen Ablaye Daaro Mbaar Maajoor Daaro Mbaar Bantaal Daaro Mbaar ma jama Yaasin Daaro mi ci looro gege noo balab taaw Amadou Ndeela manu nañ Sambe Amadou Ndeela manu jaam Sambe togo maam daanu saabay àll. waaw waaw keroog ba te xarit gi leba ba nuy séddale ndox sama maam ku ma fuutaa nga doon maye ndox. julawaali yee kenn du yow sàmm si rek. wulee Ndiaye Ndiaye eh. yee Ndiaye wuli joo. julawaali yee wulee Ndiaye Ndiaye. Soda. ca Eva nga dégg. Abass. am teraanga mën koo jëf. xam nga yow. ko takkal bëgg ko soo la bëgg. Aïda Samb la bëgg Eva. sa puudar bu sax jéggi ko dégg ko waxuma sa wëriñ. Mm, day am ñam bi. abi nga tere sa bu yàgg tere sa may bu yàgg bëgg saw askan bëgg sa famille tubaarkàlla depuis bi ma ñëwee tubaarkàlla indi teraanga ci kaw lu ne xawaat waaye balaa dara xew maam lay nuyu may maa lay nuyu rek maa may tubaarkàlla dem maa may jabar muy Kumba Mbay nga jàkkaarloog man defal na teg man ay teraanga kon su ma ñëwee for naa laa nuyu tubaarkàlla abi abi nga nuyoo nee nee na bëgg na ko bu yàgg balaa sëy bi am fonk na leen balaa sëy bee am respecté na leen balaa sëy bee am teg leen place balaa sëy bee am tubaarkàlla nag waa Gàmbi nee nañu Aïda yow la ñuy xaar Aïda Samb Aïda sa njëkkee yoon ba ma ko bàyyi waxtaan ma jàkk si gin nee na Abbas du Samba àllar wa bi taxu koo jóg daa dëkk Gambie tabaxal ndeyam villa jox ko tabaxal baayam villa jox ko am ay jabar Gambie tabax ay villa jox leen kon bu la takkee war naa mën a ne abi nee na kontaan na trop moo ki bokkam moo gu néegu ndeyam bi néegu baayam bi njëkk yi ndaw yi toog nit boole dérangement déplacement jóge Gambie. ah dugg nga ci yu bari jom. maa la wax loolu maa ko am teraanga. maa ko xam man. am nañu diina am nañu lislaam. waaw waaw bu jëf ji bare wax ji bare du ñoom waaye bu jëf ji bare ñoo am. waa Gambie la. Abbas daal nee na nopp naa Aïda. ah teg naa Aïda place. ah buñ ko takkal bëgg ko a la. Aïda xam